alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ak kontaante di eh, waxtaan ak yéen saa yi nekk ci rajo Tawfik FM. 97 point 6 te kàddu gi jóge ko fii ci Madina Ñaseen Kër Madiabel tey nag di altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru euh, avril 2019 tolloo ak fukki fan ak juróom-benn ci Chaban ci atam junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi toog fii ak suñu sëriñ suñu kilifa. cheikh alhaaji barham aboubacar sëriñ Baye Niass nekk xalifa cheikh sëriñ Baye Niass fii ci Madina ñi seen ci kër ma jëbel mu am waxtaan woo xam ne bëgg na koo seq ak mbokki jullit yi ñu ànd ak moom déglu ko bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin yaa himmata cheikhi utu lana baatal wal tant bi bi nadratin taati lana bi safari mbokki jullit yi bokki taalib yi maa ngi waxtaan ak ci turu Cheikh Serigne Baye ci làmmiñam nga xam ne Baye dafa wax ne moom nag ci bopp taalib yi ci ndigal bi nga xam ne itam jëlee naa ko ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu toog ci plateau Cheikh Serigne Baye Niass am ndigal Mawlana Cheikh Ibrahima ci plateau Cheikh Serigne Baye di ci doxal li ma man di ci yéene itam lépp loo xam ne des na di waxtaan ak taalib yi ndaxte nit bu jëlee lu bëri lu tuuti lay dese te fi mu ne nii am naa ndigal ci Mawlana Cheikh Ibrahim ci wax ci taalib yi lépp lu aju ci pays bi ak ku mën a ak ku mën ne li may nag du romb mukk ndigal bi nga xam laa jëlee ci Mawlana Cheikh Ibrahim mu yàgg lool. maa ngi koy seetlu ba ma jotee ndigal beeg léegi waaye lii may wax nii ba ma commencé wax rek léegi di ci waxtaan Alaaji daam ak Seex Matiya wax ci ñu bëri ci pays bi def naa ci boo xam ne ku bëgg danga koy gis seet ba xam ma jaar baag si fii léegi gis naa ne bi muy commencé wax rek fi ma jaar baag si fii man na fanweeri at ak ñeent léegi te àddina nag wóorut nit bu amee ndigal dafa war mel ni ko amee ndigal maa ngi wax ci sa baatam ndigal dootuma ci ngërëmal kenn waaye itam seentuwuma ci meram kenn ndax ci taalibe yi ak ci sopp yi lay waxaat te yaakaar naa ne ñooñu li ma ciy wax aju ci bàyyi du naqati kenn ci ñaari ñaari ñooñu diggante taalibe ak soppe ma ñaan yàlla tey mboolana sewdaan bi sewdaan mi nga xam ne moo ko jiite ci ndigal yàlla ci ndigal yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ndigal sama tiyaan waxaan naa ñun ba tey lu aju ci taxawaay bii nga xam ne moom la jiite ak ñi mu ko àndatoon muy ay muqaddam Cheikh Sëriñ Ba Ñas bopp nekk ci boppu taalibe yi yëpp comme ni ko Cheikh di ko bàyyi waxee woon ndax sax sëñ Mbaye moo nekk ci boppu taal bi yëpp te mu ne moom tegu ko fi yàlla ko fi teg kon nag mu joxee digal itam kuutul lëf du jokkooatem du laara wax wala olof sax moo ko wax may xoom nag mboolem taalibe yi ak soppe yi te su may wax dama bëgg ku may déglu di may déglu xam ni may waxee taalibe yi laa bëgg a waxaat ak soppe yi ku mën a doon nag ak noo mën a mel ak foo mën a ne gannaaw taalibe nga soppe nga maa ngi wax yow te te it waxuma la danga yow nga def nangam dama lay yëgal li nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim wax moom la bind moom la bàyyi fii mooy antaaru diini bi nga xam ne mu ngi suñu loxo ñun ñëpp ñu bokk ko du tarika nag bu yàgg ba tey antaaru diini du tarika tarika mooy loo xam ne nit ko moom bàyyi ko fi bu demee ay doomam teddoo ko te yaakaar naa ne yàlla dimbali nañu ba loolu amut lii nga xam ne wanataaru diine ñëpp ko sëq ki koy taxawu nag jiite ko ak ki koy dimbale ñaar mbir lañ war a toog ni ko bàyyi waxee man nag bu yàgg ba tey maa ngi ciy yëngatu di nañ def li bàyyi wa nañ def li bàyyi wax nañ def li ma war a waaye lu ma ci jublu moo lu baax rek laa bëgg te xam naa ne ku mel ni bàyyi ci ñun amutut du ci xam-xam du ci wilaaya du ci maqaama du ci mbóot du ci jot ay ndigal yu bàyyi ko ci yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam te itam pay bi payam la maa ngi wax li arab di wax ne jox nga xale gi ki wattam jox nga néeg bi dëkkaloo nga néeg bi dëkkaloo nga ci néeg bi ki ko tabaxoon jox nga gi ki ko wet dëkk nga lëkkaloo nga ci néeg bi ki ko tabax may ñaan nag mboolem taalibe ak soppe yi ñu jox xale gi ki wet ñu dëkkaloo ci néeg bi dëkk dëkkaloo ci néeg bi ki ko Mawlaana Mawlaana Cheikh Ibrahim moo dëkk moo tabax néeg bi Mawlaana Cheikh Ibrahim itam moo xet xale gi suñ ko dëkk loowee ci néeg bi mu tabax jox ko xale gi mu xet jàmm rek ay kaw ñun taalib yi nag ñun ñëpp laa wax ñun ñëpp laa wax góor ak jigéen mag ak ndaw ko koo mën a doon mën a mel ak koo mën a mel nañ nangu ne bàyyi moo jiite moo jiite ci xam-xam moo jiite ci wilaaya moo jiitu ci ndigalu yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ci payam bii di payu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñaar yi nga xam ne moo aju ci pay bi mooy maarifatu billahi ak antaaru diini lépp ci loxol bàyyi la la ko yàlla teg mooy tëddal mooy xàtte mooy wax moom la ñuy déglu moom lañ gëm mooy suñ sëriñ moom la ñuy xormaal képp ku nekk ci palaasam nag ak koo mën a suñ la gisee ci waa meloo bi ñu bàyyi waxoon rek dañ la jox li ñu joxoon bàyyi ndax bàyyi rek lañ bëgg man nag maa ngi wax ci lamiñu taalib yi yëpp te loolu ndigal la bàyyi ko ci Alaaji Ibrahima la ñu ko fekkee woon nañ ko ñu ko fekku tam ñu ko digloo ma bëgg ñu dajee delloo mbir yëpp lépp ci loxo ma dina ci toos néeg baay bii may ñaan yàlla ma kenn de waxuma kenn ñëwal dëkkee ko waxuma kenn ñëwal def nangam dama ne yow yàlla maa ngi lay ñaan ci sa ci sa ndimbal yow ci sa kattan nga indil ñu koo xam ne dafay dëkk ci nekk baay di jéem lam daan def di wax lam doon wax di dindi tit bi niñ ko defee niñ ko taawalee ci diggante déeg baay ak jàkka ji ñu ba nga xam ne ci néeg baay da nga mën a dem ci jumaa ji direct may ñaan yàlla itam ñoom ñoom yàlla laa koy ñaan de ñaan mu ko nit Mawlana Cheikh Ibrahim di jiite ci jàkka ji di jiite ci xeet gi ñaari xeet yi di génn di juma di génn di di jiite ga euh, di lal ci waxtu lal di wax ak taalibe yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba battat wëcc wëcc mu waxtaan ak taalibe yi ñu delloo leen ñu loolu laa bëgg yow yàlla rek ko laa koy kanam yonti yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam li nga xam lépp nag jàng wa loolu la kon loolu lañ mën a dëkkal loolu lañ mën a gëm yow yàlla yàlla nga delloo si Madina ni meloon bàyyi dëkk ci néegam taalibe yi di ko fekk di ko siyaare muy génn ci néegam dem ci jàkka ja yooyu ci kaw minbar bi xutba jiite nit ñi ci xam-xam jiite leen ci xeet ñaari xeet yi jiite leen itam ci di lal waxtu ku bàyyi daan waxee ko bàyyi daan lalee di gàmmu ni mu daan gàmmu wala lam jaman ba bëttat mu waxtaan ak taalibe yi loolu de maa la ko ñaan yow yàlla laa nu ma ko kenn kenn kenn lu wa yow ci darajay su ma Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu demante bés bu ma amoon su ma fekkee ak bu ma fekkul man xol tama xol dina tedd ma ñaan nag taalibe yi yëpp fu ñu mën a nekk ñu def sen xel ci ne Baay mooy sëriñ pay bi wax loolu nag teg taliwul ne dafay contrôle kenn wax lu wax ne Baay jiite ci pay loolu ñaawut te du jubadi te du kontal kenn wax dëgg rek la yow yàlla yàlla nga dajale mboolem taalibe Baay ci wenn benn buum noote leen ci